asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne baaxoo nañ di ñu bàyyi xel fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ci jumaa ju mag ji nga xam ne moom la Cheikhuna Ahmadul Xadim liggéeyal boromam subhaanahu wa ci dëkkam bi saa yu weer amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent commission bi nga xam ne ci ndigalul sëriñ bi lañuy dox dana ñëw taxaw fii di séentu weer wi ci njiitul sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso ànd ko ak sëriñ Abdou Diop imam ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afia ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci région yi ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdoul Khoudoss mi dox suñu diggante ak waa Tivaouane waaye ku mel ne sëriñ Modou Mbacké si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides yi nekk ci région yi saa yuñ jullee timis ba noppi it sëriñ Abdou Diop imam dana yëkkati kàddoom ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee na nañ séentu weer wi te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko noonu it danañ ànd ak ñi nga xam ne ñoo nekk état yi te diñuy jàppale ci liggéey bi liggéey bu am solo loolu nag tey jii la ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tamxarit euh, ñuy séentu nag euh, safar weeru safar wi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa Xaadimu sol waxoon ne saa yu ngeen àggee ca fukki yaa ak juróom-ñett na ngeen ma ci sant la sama borom kon tey jii ci altine ji yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bi ñu sëlmalee timis ñun ñëpp ànd na nañ déglu Sëriñ Abdou Diop bi mu daaneelee la ñu ñëw ci bunt soow bi nga xam ne moo jàkkaarloog tali alaaji Babacar Kebe Njuga yàlla suñu borom doole ngërëmul yàlla ci moom ginnaaw bu nag jokkoo na ak kër Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ñu bàyyi ko mu wax ñu li nga xam ne moo jóge ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokk yépp te di leen baal waq di leen baal te di leen xamal ne ni ko suñ Fallou Galassi la waxee rek tey la ñaar fukki fan ak dikk nañ ci jumaa ji yéene fi ne nañ séentu weer te loo ci waaye xam nga ñëw yëgle ko buñ defee noonu ba noppi it buñ génnee ci soow dan dañuy toog foofu di séentu ak di taatan xibaar yi ci gox yi biñ ko defee ba eh, ci waxtu wi nag mel na ne am na xibaar yuñ jot ci gox yi wane ne gis nañ weer foofa ndax tey asamaan si dafa xaw a lëndëm waaye béréb bi waaye moom ne nañ moom daa daa lëndëmul moom moo tax kon nag ñu xam ne weer yu feeñ na tey jii ci altine ji suba ci talaata ji mooy benn fan safar kon mel na ne màggal gi ajjuma lay doon kon kon ñu ñu ñu xamee ko noonu te xam ne bu ñu defee noonu dañuy jokkoo kër sëñ sëñ sëñ Muntaxa ba yëgal ko ni mu demee lépp bu ko defee mu jël ndigal ci wax ne léegi kon nañ xam ne suba la benn fan kon nañ ñëpp xam ne suba ci talaata ji mooy benn safar fan safar kon màggal gi war a doon ajjuma noo ngi sant nag tey xam ne lii mooy mooy sunu màggal te it euh, bis ba ñuy màggal mooy ajjuma ja yi ci des yëpp nag danañ ko am na ñu koy barkeeloo di ko màggal waaye ñu xam ne bis bu mag bi ci boppam moom mooy ajjuma ji ñu ko ñëpp xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon ginnaaw kadd yooyu tukkee ci sëriñ Abdou Diop imam dañuy jaar di jokkoo ak waa daayira mu xadamatul xidma bi nga xam ne képp kuy maggal si sam xel ci jumaa ji lay ne te ñoom yor lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji ajjuma 23 août mooy màggalu Touba kon sëriñ euh, Ablaye Diop euh, bisimilah euh, ñu taatan kàddu yi nga xam ne waajtaayu màggalu Touba dëgmal na tey saa yu benn fanu safar jotee rek xel yëpp danañ daal di tàmbali Touba di daloo ay gan waaye gan gu ñëw nag sa xel dana nekk ci jumaa ji ana yan matuwaay ak yan kàddu ngeen di denk waa réew mi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen ndokkeel bu baax ci weeru safar wi nga xam ne moom lañ doon séen te suñu borom dogal mu feeñ ni ko sëriñ Abdou Diop imaam waxe ñu ci ndokkeel mboolem jullit ñi waaye di ci ndokkeel mboolem murit ñi di ci jiital Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi toog tey jataayub Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wér ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ni nga ko waxee ku tudd weeru safar tudd màggal te ku tudd màggal gi tudd jumaay Touba ndax ñi màggal si ñi ëpp ci mbooloo mi ci jumaa ji la ñuy ñëw ngir def seen ziar ak seen i julli kon mel na ne jumaa jooju laaj na ab taxawaay mu Muxaddamatul Xidma bi mu taxawee atum 1994 ba léegi dafay jox bis boobu gëdd ju mag a mag a mag ba tax na dana ko waajal ci aw waajtaay bi mu yellool muy lu jiitu màggal gi waaye biir màggal gi mu am ay taxawaay yu mu ciy def ginnaaw màggal tam am yeneen taxawaay yu mu ciy def bu dee ci waajtaay wi ñaari waajtaay la am waajtaayu jëmmi jumaa ji nga xam ne moom lañu war a taaral yeesalaat ko ndax màggal nag ñun ñii nga xam ne ay taalibe lañ rek suñu kër yee li muy doye di doye di bu màggal jubsee dañ koy yeesalaat ñee ngay peinture di defaraat euh, di di tabaxaat di raaxaat ku amut dara sax da nga jël tuuti kilo ciment sax raax ko woneen da ngay yeesalaat sa kër ci màggal rawatina nag barabu Cheikhul Khadim bii nga xamante ni mooy néegub yàlla boo xam ne fi la Cheikhul Khadim nekk kon waajtaay wala ku Muxaddamatul Xidma njëkk waajal ci wàllu euh, entretien nettoyage lépp loo xam ne nekk na ci jumaa ji ci pile bu lakk wala ventilateur wala lum mën a doon loola dañ koy waajal dindi ko defar ko ba mucc ayib setal jumaa ji itam ba mu set wicc kaw suuf biir ak bitti ngir waajal bis bu mag boobu bis bis boobu nag ci waajtaay woo itam am na ci weneen waajtaay woo xam ne waajtaayu xam-xam la muy ay jataayu xam-xam ay waxtaan yoo xam ne dañ koy waajale màggal gi yoo xamante ni commission culturelle bi nekk ci biir te sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno jiite ko waajal nañ eh, ay waxtaan yoo xamante ni moom lañ fas yéenee waajale màggal gi ci ay palaato ak benn conférence bu mag boo xamante ni ci la 11 safar war nañ koo def ci ci ci ci jumaay Touba. bu loolu jàllee itam am na beneen exposition boo xamante ni dana ubbi avant màggal gi waaye itam ci biir ci biir exposition boobu itam danañ fi fësal lépp lu aju ci jumaa ji wala ñi nga xamante ni ñooy xalifay Cheikhul Khadim yi fi mas a jaar lépp luñ mas a def ci jumaa ji liggéey ko ci jumaa ji danañ ko danañ ko ci def ren ñi ngi jël ci ñi ngi jël ci euh, euh, jumaa ji lu ñuy wax rawda bi mooy barabu sëriñ bi moom lañ fas yéene gëstu xamal ko nit ñi ci barabu sëriñ bi moom lañ fas yéene gëstu ren ndax at yi yëpp weesu gis nañ ci bare bare ci imaam yi fi jaar ci noddukat yi ci bayaankat yi ci histoire jumaa ji lu ne def nag waaye nag ren moom ci barab bi lañ fas yéene waxtaan bu loolu jàllee nag ci biir màggal gi nag exposition boobu day wey ba nga xam ne bépp taalibe bu fi ñëw war a soxla xam xam histoire jumaa ji da ngay dem ci exposition boobu wala histoire bu aju ci yoonu sax ren ñu tudde ko Serigne bu so war a waxtaane kan mooy Serigne bu so ak eh, ay ay ay jaar-jaaram ak ay ay ay mën a jàngate ci moom ak ay taxawaayam loolu di di lu am solo loo xamante ni ci waajtaay la bokk bu ko defee bu ko defee ci biir ci biir waajtaay yooyu itam bokk na ca kon bu ko defee ci le neuf safar la waxtaan yooyu di tàmbali waxtaan bi ci njëkk ñi ngi waxtaane jàkka ak Euh, euh, ab taxawaayam ci lislaam boobu sëriñ maam Balla Mbacke moo koy def bu di safaree am na beneen waxtaan boo xamante ni ñu ngi war a waxtaane euh, yaasal busharaati yaasal busharaati bil ayaati wa suwari te sëriñ bi taalif ko moom itam ñu war koo jàngat boobu sëriñ sëriñ Mbacke Abdourahman moo koy def bu defee ci beneen onze safar bi mooy conférence bu mag bi lañ war a waxtaane yoonu murit téeméeri at yi nga xamante ni ginnaaw sëriñ bi nan la nan la yoonu murit euh, demee taxawaay yoonu murit ginnaaw téeméeri at yi fi sëriñ bi jógee boobu sëriñ bu Bousso Assane moo koy def bu ko defee euh, fukki fukki fan yi ak euh, ñaar ñi ngi war a waxtaane itam kërug daarul mannaan gee marxalatu daaru mannaan étape bu daaru mannaan di étape bu am solo ci histoire yoonu murit boobu lañ war a waxtaane moom itam sëriñ sëriñ Mbàkke Abdourahmane moo ko war a def bu ko defee beneen treize safar bi muy fukki fan ak bu ñu ci àggee ñu ngi war a waxtaane xutbatu wam sachin te mooy xutba bi sëriñ bi mujj def ci njaareem boobu itam euh, euh, sëriñ Ahmadou Mbacke Daarul Moxti moom moo koy def bu ñu àggee ci 14 safar te mooy waxtaan wi ci mujj ci waajtaay yi moom ñu ngi war a waxtaane alxaybatul bahriya muy tukkit géej gi yoonu géej gi jàngat yi ñu ci war a def loolu sëriñ bu Bousso Tamba moo koy def kon loolu mooy waajtaay waxal si Amina la 11 safar moom mooy waxtaan wu mag wi nga xamante ni moom nag ci la daayira Muxaddamatul Xidma di woo mbokki taalibe ak mbokki jullit yëpp ngir ñu fekke ko di waxtaan wu am solo woo xam ne ci fukki fan ak benn ci weeru safar la war a am kon loolu yaasal bu saarate bi Serigne Bassirou Touré moom moo moo war def waxtaan woowu bu defee bu loolu jàllee nag ci biir nag màggal gi nag exposition boobu ma wax moom day wéy ba ci fukki ñaar fukki fan safar bi ci lay jeex waa nag ci biir màggal gi nag mhm. am na beneen waajtaay boo xamante commission organisation ñoo koy def mhm. muy nag taxawu nag ñi nga xamante ni ñooy ziyaar si mhm. ak julli gi ak cetug jumaa ji ak sàmmonteeg worma yi ak yi nga xamante ni xëy na dana tax taalibe yi mën a am li ñu bëgg ci màggal gi te du te duñ fi jëlee loraange waaw sëñ Abdou foofu diggante bi comme màggal gi ren defa daleeg julli ajuma bisu màggal gi mooy ajuma ji nan la euh, muxadamatul ma di taxawee ci diggante way ziyaar yi ak ñu bëgga julli waaw moom laal moom laay wax euh, taxawaay yi ñu ci def ndax xam nga ne màggal moom daanaka boo ko waxee jullit ajuma gi da ciy yokk waaye mbooloo màggal moom daanaka men benn ful la boo xam ne diggante fukki fan ak juróom safar ba ñaar fukki ñaar fukki fan wala ñaar fukki fan ak benn benn mbooloo mi lay doon ajjuma ji nag beneen liggéey la boo xam ne da cooy yokk moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ren def na mobilisation bu am solo déployé na lu mat 500 membres juróomi téeméeri membres yoo xam ne guddi ak bëccëg jumaa ji la ñuy nekk féete fi lan mooy seen liggéey lu dul muy sàmm sàmm war may jumaa ji war may jumaa ji ci xajjale góor ñi jigéen ñi waaye itam ci fexe itam ba ziar bi am waaye fexe ba taxawu julli ajjuma googu ba mel ni mu war a mel ci biir loolu itam fexe nañ ba am benn infirmerie ci biir boo xam ne dañ koo waajal ci wàllu wér-gi-yaram ba képp koo xam ne am na jafe-jafe ci biir wér-gi-yaram ab urgence dañ ko mën a jël fii euh, première soin balay génn ndax xam nga jumaa ji xëy na dafa xataay bi dana xaw a a metti loolu tam am amal amal nañ ko fii bu màggal gi weesoot nag ci la ñu tëj liggéey bi waaye nag defaat beneen opération boo xam ne seetalaat jumaa ji ba mu dellu ni meloon bagage yëpp ñu delloo ko fi mu nekkoon nga xam ne wàccaay yi daal lu jiitu màggal ak biir màggal gi ak ginnaaw màggal gi loolu mooy programme mu xatma euh, yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan kon lii seentu weer bi la dégg nañ programme mu xidma danañ am yeneen plateau yoo xam ne danañ ko seq ak bokk yi kon ñi nga xam ne ñooy wàaj màggal si nañ bàyyi xel bu baax a baax war ma ji nga xamante ne bi daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy sant taalibe yi te muy ndigalul Serigne Touba ñoom ñëpp ñu sàmmonte ba kuy ñëw ci jumaa ji nga mën a àndaale melokaan woo xam ne boo dikkee ci jumaa ji kenn du la ko tere kon ñu ngi sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.